Cheikh Top maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu sunu auditeur wu seen auditeur sunu ay auditeur aussi ah Sunugal 24 yëpp à travers le monde di nuyu suñu mbokki Sénégal aussi ndax xam naa ne comme ni koy waxee toujours euh, yàgg naa vraiment di nekk invité ci seeni ay émission mais bi yoon yàlla def mu nekk en en direct. voilà il est là avec nous aux États-Unis vraiment ñu lay dalal ak jàmm. merci jërëjëf sëñ Tounkara ñu ngi lay fay ñëw di la wax merci également ci dalal gi ñu dalal parce que ku ñëw États-Unis bu la fekkee moom na njaatig bu baax. di nuyu Moustapha Mbaye également mi nga ni moom nga doon faral di defal émission alors dañuy dem droit au ci li nga xamante ni moom moo am li am actuellement mooy élection législative yi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal. mais depuis quelques jours Macky Sall def mel ni ba léegi pareegul ngir janoog Ousmane Sonko ndax def na recours defaat recours ngir naanal li nga xamante ni moom mooy candidature Ousmane Sonko ndax jàpp na ne Ousmane moom amagul ba léegi li war a tax mu mën a bokk si ay joŋante parce que li ko génne woon ci élection présidentielle yi ba léegi dañagul wal en réalité defe naa am na loo xam ne ñun ñëpp déjà seetlu nañ ko maa ngi lay remercier bu baax a baax sa question boobu Eh, donte nag defe naa eh, Sénégal moom léegi sama waa ji comme ni ma koy waxee dafa def erreur defe naa ndax dafa joxe mbir mi ba pare defe naa fàtte na ne amatul benn man-man wala sañ-sañ ci Sénégal <laughs> dafa fàtte na Sénégal léegi dafa am eh, li américain dina there is a new sheriff town maanaam dafa am njiit bu bees ay njiit yu bees boog laa wax te mu am aussi benn dynamique bu bees boo xam ne vraiment nekkatuñu ci dynamique diversion wu ma Macky Sall dañ ko daan may nag saa bu jógee di euh, euh, léere wala di réeral bokk nit ñi wala di wax loo xam ne yenuwul maanaa ñu entertain ko mais Sénégal tollootul ci boobu situation euh, donte nag am na ci droit kon bépp Sénégalais ni mu ci amee droit mais ñun dañu doon ñaan rek bu fekkee yow dëgg dëgg dëgg dëgg am na fit ay recours ak yooyu yëpp mën na cee ñàkk moom na ne càpp rek Sénégal jàkkaarloog ñun vraiment yaataa yomb ci dëkk bi boobaa dana xam recours am lu muy yar. situation bi Ousmane nekk est-ce que du problème également mu gàllankoor absolument pas xam nga euh, euh, topp damay rafetluwaat encore une fois euh, question bi. Ousmane Sonko amul dara lu ko mën a gàllankoor pour mu doon candidat bu leen fàtte ne Macky la ci boppam ba mu defee recours ba mu demee euh, cour suprême dafa am foo xam ne fa la arrêté te Ousmane ba léegi Macky Sall recours bi nga xam ne moom la ñu waroon dugal pour yegg fi nga xam ne moom la ñu waroon yegg ak Ousmane fu fa anglais dina he start short of that hmm. Macky Sall ci boppam ak ñi muy defar recours xam nañu ne. mënuñoo gàllankoor candidature Ousmane Sénégal benn nit moo fa am euh, euh, maanaam daan bu yegg condamnation bu bu yegg kooku Barthélemy Dias la te defe naa Sénégalais yëpp xam nañu boobu. xam nga mais dans les xam nga man damay ne on est dans un pays sérieux nest pas ñun ñoo woote woon jub jubal jubbanti. et on est dans un pays sérieux voilà donc loolu amul layam layami quoi pour man nekkatuñu ci réewu sentiment waaw damay bañ ma def lii nit ñi xalaat lii wala nit ñi yaakaar lii wala nit ñi ne dama koo ragal wala déedéet xam nga dëgg dëgg rek la dëgg bu ñëwee da nga koy teg ci kaw table te nga dox ci ñoom xam nañu ki ñu war a gàllankoor xam nañu ki gàllankoor Macky Sall ki mu bëggoon gàllankoor jàpp ko te mu yóbbu dossier ba mu sës ba yóbbu ko cassation ñu daan ko kooku Barthélémy Dias la moom xam na loolu mais Ousmane amul dara loo xam ne mën na koo teree doon candidat te ñoom xam nañ ko. ils le savent li teree doon candidat Ousmane ci ce que même chose mën ko gàllankoor. xam nga élection présidentielle yi nañu waxante dëgg te mu yàlla rek tax daan bi nga xam ne ñoom daan nañ ko Ousmane ñoom xam nañu ne doyul woon pour gàllankoor ko ci élection présidentielle yi. ok diffamation nga wax ak diffamation yi six mois la. six mois net mais il faut plus de six mois pour nga mën a ñu mën laa gàllankoor. dañ ko jaay dañ ko jaay doole. ñoom xam nañu ne dañoo juum xam nga déjà dañ la ne ku ñu condamné plus de six mois. ak sursis. déjà Ousmane Sonko six mois rek lañ ko def ak sursis. pas plus de six mois ak sursis. Barthélémy Dias par contre moom dañ ko condamné criminellement hmm. ci rey doomu Adama. ñoom ñoo ko wax de. ñun waxuñu ko kii yëpp. exactement mu topp kuur yëpp ba mu sës. donc ñaari mbir la yoo xam ne je pense que juriste yi ñu ngi ñu koy way bi bu ne te xam nañu luy dëgg bi nag ndax article yaa ngi fi je pense que ñuy bari ci ñoom comme nit ku nekk ak mëneefam je ne suis pas juriste mais au moins déglu naa te lire na article yu bari yuy wane ne Barthélémy Diaz mais mënul nekk candidat légalement mais léegi pour divertir sénégalais yi. ñoom ñuy tëgg sabar bi nga xam ne du moom la soxla rythme bi. mais est-ce que divertissement la wala piège parce que bu fekkee ni recours Macky Sall bi jàllul conseil constitutionnel bi invalidé woon candidature Ousmane Sonko mais est-ce que boobaa Macky Sall du leen buux ci mur bi mettre leen devant les faits mais ah kii kat yéen a ko fi xañoon y a pas longtemps candidature. mais ngeen ne mun na nekk. est que nekkul donc ñun ñu ne deful lu ngeen warul woon mais Macky kan la àndal déjà Macky Macky kan la coaliser. waa PDS. ok même nit ñi mu ne woon ñoom ñoo corrompre ay juge écoute ah c'est le même c'est le même Macky qui dit yi mu dem joxi recours nii moom nee nañu juge yooyu dañ leen corrompre même juge yooyu ñoo fa toog di ko xaar ak recours am te kenn gisul ba léegi corruption boobu ñu doon topp fan la yem kenn gisul fu mu dem. xam nga mooy li ma la expliquer encore une fois xam nga élection présidentielle yi Macky dafa am ñaari affaire yoo xam ne ñoom la visé woon pour ñu invalider ko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay xam naa nag. ba mu demee ba moom ci boppam mu gis ne benn bi moom mënu koo invalider mu mu def kenn kattanam pour ay tappale rek ñu invalider ko benn mais moom xam na ne teguñu ko ci yoon gis nga mooy li ma la wax léegi ma ne la gis nga Sénégal bu bees bii ñu ne muy juge conseil constitutionnel ak beneen juge du ñu risqué ti seen carrière xam naa fi may waxee peut-être dégguloo ko juge yi kan moo leen di fal bokk na si ñi nga xamee. donc nga defee ne ñooñu jëlati ay risque di dox ci ay tappale xam ne loolu mën na leen indil ay risque duñ ko nangu. liberté de la justice. mais loolu du liberté de la justice dañ ko mën a tappale tappale kay bu amee liberté amatu. mais c'est problème bi ma xam nga boo jubadee. Hmm. njub boo tegee lépp ci njub. waaw ah. par exemple juge ñu affecté Tamba lan moo tax ñu affecté la. lañu a dañu jàpp ne ils sont malhonnêtes. dañu jàpp ne dañu nekk dañu jàpp ne mais du man ñooñu dañ leen waroon dàq emprisonné leen man ba léegi